responsabilité euh, de Yewwi Askan Wi. Askan Wi gis nga après dina tracer benn schéma boo xamante ni l'opposition ñun opposition mooy xarab nit opposition mooy génne nit yi ci mbedd yi ñii opposé woon noonu amuñu xam-xam ci réew mi soo xamee lan mooy président de la république da ngay xam ne l'opposition aide le pouvoir à mieux être du n'importe qui mooy opposé wu. ñun nag yooyu lañuy ñuy fooye contrôle nit ki da ngay yàq kooku amul xam-xam ci réew mi gis nga fi ñu toll nii ñiy puus nit ñi ñu génn di leen puus ñu manifester di leen puus ñu taal ñooñu ñoo bokk ci ñi nga xamante ne cycle bi fi mu yam ñooñu fa lañ jam amuñu xam-xam ci réew mi dañuy yàq réew mi te ñooñu ñoo orchestré lii yëpp de li xew ci dëkk bi yëpp ñoo ko orchestré moo tax man la Yewwi Askan Wi ce sont de grands enfants doo fa jël un monsieur responsable déjà ñoom ñi ànd ñoom seen biir gëmante ba pare amul lenn lu ñuy teg loo xam ne da nga xam ni ñii li ñuy teg ni lu ñu gëm la ñoom seen bopp donc benn furie la buy dem nii rek comme ni ñuy wax la foule est ñu jël xale yi ànd ak ñoom ci mbedd yi di def du n'importe quoi loolu kese la donc li fi yëpp ils sont responsables. mais pourtant ñoom euh, dañuy légitimer leur action parce que dañoo jàpp ne devant un gouvernement qui verse dans le dans le dans, le ce sont leurs termes euh, devant un gouvernement qui verse dans le banditisme devant un président de la République qui choisit ses adversaires euh, devant les oppressions yi nga xam ne dañu injuste yi nga xam ne dañu koy subir ñoom ils tamit ils n'ont d'autre choix euh, que d'adapter leur forme d'opposition aux manœuvres et comportement euh, du pouvoir vu boo gëmmee nga jël yenn principe yi nga teg ko ne la vu sous cet angle euh, est-ce que du euh, politique yëpp ñooy responsable de cette moo tax ma wax Benno Bokk Yaakaar parce que pouvoir aussi boo ko yoree dafa am loo xam ne waroo ko def dafa am loo xamante ni Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo poussé nit yi ñu dem ci extrémisme boobu noonu moo tax man génnewuma leen ci lii mais yow mi nga xamante ni da ngay ut nguur en politique la violence discrédite discrédite les acteurs en politique y a violence politique benn niveau la boo xamante ni. dangay ngay comprendre déjà yow li nga bëgg ut ci politique lan la ba pare mais ñii di wax ni yëpp nekk yeewi askan wi koo ci jëloon nga teg ko tey fi mu toll nii ci Sénégal du la wax dara ci réew mi du la wax dara ci sous région bi du la wax dara ci wàllu sécurité xamu si quand même voilà euh, euh, Khalifa Sall grand homme d'État ah, dama la wax benn affaire de dama ne la non bu bu leen jël man jëluma ne ñoom ñoom def leen de l'État il connaît l'État et il a eu des limites Euh, il y a eu des limites qu'il n'a pas qu'il n'a pas franchi man su ma doon Khalifa Sall idem pour Malick Gakou idem pour Aïda euh, Mbodj euh, voilà gis nga ñooñu à aucun moment taxaw ñu c'est des hommes d'expérience ne nit yi arrêtez vous expérience mooy li ma wax naan yàgg fi trop ay at yu bëri la rek l'expérience c'est quoi en réalité expérience bu amoon doo gis un docteur qui a 27 ans yilif ñoo xam ne mën nañ ko jur ban docteur moo am 27 ans yilif ay ñu ko mën jur am na ñoo xamante ni ñun bi ñuy génn Saint-Cyr moi j'avais quoi 26 ans dama ñëw yilif ñoo xamante ni mën nañ ma jur. ah d'accord donc expérience bi c'est quoi c'est quoi dafa am expérience boobu fan laa ko doon gëmee tey nga gis ay xale ay ñoom Sonko ñi ñëpp ce sont des jeunes mais tey am na ñoo xamante ni bu ñu naree dugg seen affaire yi nañ taxaw. événement de mars 2021 man bi ñu commencé quand j'ai vu l'histoire d'accusation de viol man sama page laa dem bind le Sénégal est en danger boobu leen nit ñi jàpp ne damay foog ma toog ci télé ne Ousmane Sonko bu dee mi may dégg qu'il n'appelle pas les ma demaat au plus profond ne dëkk bi mi ngi dem fii ak fii ak fii lii moo fi xew homme d'état yi nga xam ne lu tax xamuñu lool man bi ma njëkkee def sortie ak yow y a beaucoup d'autorités qui m'ont appelé bi ma ñëwee dañ ma ne mais yow comment ça fait que nga nekk si biti xam lii yëpp am ñu bëri ñu nekk si biir appareil bi xamuñu ko donc om détail ak seen expérience am nañu fan lañ nekkoon mais ñoom dañuy xam mais parfois c'est le calcul politicien qui prend le dessus. tax ma ne la tey bu fekkee ne yow da nga bëgg réew dafa am loo xamante ni amul calcul Sénégal dafa demoon ba toll foo xamante ni affaire calcul li nga bëgg li nga bëggul man def nañ ma lu nekk pourtant mënoon naa utiliser loolu mais dama jël loolu yëpp teg ko fële teg la république parce que réew mi ñun moo ñu njaboote ñu ñëpp bu yaaxoo ñu ñëpp la yaaxul kon ki kay ut day dem ba toll foo xam ne day xam ne ñun kat ñi ngi jëm si loo xam ne baaxul bu boobaa da ngay summi sa casquette politicien biy ut dara nga taxaw maintenant comme défenseur de la république